amiin amiin Thierno salla allahu taala alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf barakala fika yal na yàlla def la mag yàlla barkeel na barakala fika dégg nga bu baax li ma la wax 88 628 32 32 mooy yoon fi mu ne bu fekkee ne ñii di fecc ak di tëgg ka way baax na de culture la de ci la bokk waaye am na leneen loo xam ne mun na nañu gën a moom. Mm-hmm. ndax ñu ngi koy def waaye dañoo xaabaabal. Mm-hmm. Mm-hmm. fii ne boo bëggee wiisa te yow mii di sëriñ. bala nga koo am waykat wi da koy am ba pare. wallaay lu weer ah lu weer te am wiisa am lépp mu yomb ko. yow sa wiisa doo ko am. ndax xamuñu la. ndax caaxaanoo. footballoo. misigoo. woyoo defoo dara. ñee la ñu gën a favoriser. ah donte lee métier la. donte lu baax la. waaye dama ne sunu aaday bopp. moo ko gën. lu wér lu ah? wér lu wér waaye mm-hmm. mooy rootaan jéggeeg dex mm-hmm. li nu moomal sunu bopp dañ ko xeeb mm-hmm. xeeb suñu bopp xeeb sa xeeb say bokk boo amee oto am nangam ami million wala nga di ministre wala nga di député wala ngay président ak loo mën a doon bu su bu ñu la yarut préparé wu ñu la sa jikko baaxul nga xeeb say bokk dëgg la dëgg la booy wut loolu ngay wut ci koñ bi nga dëkk ñëpp lay dimbali jàppale la ànd ak yow réunion guddi réunion bëccëg fu ne nga dem fa ñu fal la maire Mm-hmm. maire boobu bu ñu ko xas lëkkee xafal waa ji. Mm-hmm. day sensé numéro téléphone am. sensé mm-hmm. grand place am. peinture weeri wataam. di riiral ci koñ bi kenn du ko du kenn <laughs> kenn du ko gis. te itam nag. boo bëkkee ci gaañi. ba yàlla def la ngay waaja bu kenn ci gaa yi bàyyi ko ca gaa yi ne maa ngi jot sama waaja jëkkal def ci sa bopp ne ca gaa yi nga bokkan <laughs> te di nga dellu <laughs> ah tôt ou dañ ca dellu. am na solo. <laughs> waaye <laughs> fëgg sa dënn. Mhm. taal sa wata. Mhm. pentu say weer. Mhm. faalewu say bokk. sans sa grand place. sa numéro téléphone ji nga joxoon ñëpp kenn faale too kenn. ku ñëw sa biir du la mën a bët. mën a gis nii la nit ñi xewal. Mm-hmm. te lii ma lay wax mm-hmm. ci rajo laay waxee te teg naa ci bët te ci dëkk bi laa dëkk te ba si ngoor di wateeg Lamine mm-hmm. ma ma fekk ca Lambaay ca doon Dakar ga donc ku falu fi ma fekk wallaay wallaay may borom kër di borom ak njaboot xam naa lu fi ne xam lu na xari du dëgg kon la rek kon bareetul dinaay dégg si say wax tamit eh, ne lu waay suuxat jëmbat waaw keru sa ba mu des nit waaw lépp lu waay jëmbat uh-huh. yendu ca ker ga ba mu des nit léegi ko boot mu màtt la ko tegal échelle ngir mu yéeg mm. bu yeggee fa mu bëgg a egg ba max ko ndax day jàpp ne da nga ciy ñëw da nga ciy jaar ba am taraaga ji mu am kon nit ñi dañoo jàpp ne ku ne waroo am ku ne yow yaa war a am sa mbokk war sa am Mhm. ki bàyyi ko ca dëkk ba mhm. ñëw fii teg ab sam ci sa kër mhm. nga ëlbatiku dalal ko jox ko néeg boole kook sa njaboot boole kook diw mu jàngal ko métier boole kook diw mu jàngal ko alxuraan boole kook diw mu jàngal ko arab bu njàng may réussir buy am la mu bëgg buy tuxu sa kër wutam néeg doo ko yëg dëkk la bari na ba dem Italie du la tàggu bu jógee Italie am fa yenteet bu dikkee fii doon muudu muudu da ngay toog waaw diw gi ngeen ko ji ñu ne ah ñëwul sa am na fi weer ñibbi <laughs> li ñuy wax dellu de dañu naan ñibbi na <laughs> ñibbi na <laughs> ah te ñoom ñooñu ne ay muudu muudu mm-hmm. bu ñu ñëwee mm-hmm. lu ñu indi noo leen koy wecci Mm-hmm. dëgg la wallaahi bu ñu ñàkkee paas dem seen oto noo koy jënd. Mm-hmm. Mm-hmm. kon la nga xam ne moom la muudu muudu gàntu. li ma bëgg a wax mooy. li nga dem ci ngénte. dem ko ci ay dëj. def ko faj ko ci ay soxla. def ko ci njaboot gi. muudu muur defut dara ma nga toog denc ko. kon bu ñëwee dina bari xaalis. loolu yi boo defar ni moom. wala bu ñëwee du la ëppalee. dëgg fere yi fere ci dëkk bi ak ci bokk yi ak ci dépense yi ak lépp la muudu muur defut. jigéen ñi te départ muudu muur laa bëgg. léegi ko wax mu ne abdu abdu waxatuñ ci muuru muuru dara <laughs> ndax amuñu njariñ tane wuñu mm-hmm. du ñu joxe. Mm-hmm. ku ci wokkatu rek sa ginnaaw xesan <laughs> Moodu Moodu yëpp laa wax. Abdou Abdou mooy Abdou Abdou ne fii la toog am <laughs> jomam di mm-hmm. liggéey am ngoram bëgg bokkam toppatoo njabootam toppatoo bokkam lu ko yàlla jox mu doy loo ko. kooku mooy Abdou Abdou. Moodu Moodu mooy ñee. <laughs> noonu la demee te lii du ko weddi. wallaay lu wér gis naa ko am naa ciy bokk. lu wér lu wér kon nit day bëgg bokkam. nit day bëgg cosaanam. nit day fàttaliku démb. ah waaye démb ku koy fàtte doo gor. nit koo fi gis muy dem ak di soow kaw yëkkati mbaggam mbaggam jàmm rek la yaakaar mm-hmm. amul ku fi soowee sa doolay bopp dëgg la dëgg koo fi gis rek mm-hmm. mu yëkkati mbagg mu am ak pal ak lu mu mën a doon mm-hmm. nite ko fal nite ko jàppale nite ko dimbali te bu paree xas nit kookee wéq esel ba ba du ca jaar fay ko ngoree di kon loolu moo am ci dëkk bi léegi baak tool yaak yëpp laa la wax maanaam mboolem ñu fi ne nekk fi doomu aadama tey kuñ xanaa ka ca tane mooy ki nga xam ne ministre yu ya ak député yu jëkk ya mhm. seen baay mhm. dafa nekkan ca tool ya mhm. ñuy wàcc bu vacances jotee ñu dem foofu ca tool ya ne ca seen baay yetti weer bu ñu dikkee euh, ñu yar leen ci Dakar bu demee itam ca dëkk ba dox ca suuf sa di dégg sa bi picc ya jaar ca roon garab ya naan ca ndox ma sangu ca loolee ba fii mu ne boo ko defee wala ma def ko koo def da yees yeeslu doy na gàllaaj wallaay lu wér a wér waaye léegi bu fekkee ne sa sa réew faale wo ko sab dëkk sax bu ñ ko tuddee nga ne mais na bu ñu nee nga ne moo mais man seen wolof yi ah man xaw ma dégguma wolof. ma mhm. sama invité jenn waay. Mhm. ju tudd tur ak sant wa lépp. Mhm. turu réew mi la. duma ma tudd tëram rajo bee tax. ma am ku sant Ka. am ko sant dégg nga euh, Saw. moom mu sant Diop. bi ñu tàmbalee. ma jox ku ne micro mu ne ah non joxaane man ngeen baal ma man sama wolof neexul dégg mu wolof quoi dama yàgg bitim réew. ànd <laughs> rek ma ne ko jërëjëf noonu su du ne diw sàngam. ma ne ko diw. ak sangam lepp wa rew mi la <laughs> te lo yag yag bitim rew uh-huh. uh-huh. fi nga jiddo jange uh-huh. fi yaro fi ba am kayit wala yobbu fi nga gëna yag wallahi wallahi lu wër wër teet la mu wi dang ko koo nàmp lang étrangère la kon yow mu ne ko yow da nga xef say bok mi ngi jàkkaarloo man mu kàllu kilifa la directeur bu sangam la won waye man bu may wax ni tuk deug te yalla do dama ko da koy danget deug la deug la lolu baxul nit du tiku te boo yu xamti koo yokk sa taxawaay ñëpp seen la mm-hmm. waaye da ngay wàccaat wallaay lu wér lu wér nit day bëgg cosaanam mm-hmm. Mm-hmm. koo ci wax léegi ba ci karaw mi mu doon wax xele yëpp koo wax mu ne karaw koo wax mu ne jox ma sama yére bee <laughs> yére bee wax la yére nee naa la musuwaar bi nga am sous-vêtements yi nga am yu ndaw yi nga am yëpp mooy yére ci biir yére yi am nga ci xaftaan jox ma sama taybaas bee ah jox ma sama sir bee jox ma sama kumba Mm-hmm. foog nga xaajale leen. Mm-hmm. nit ñi xam ko. Mm-hmm. waaye yére bi yére bi yére bi dàll nga ne dàll bi. jox ma sama dàll bee. jox ma sama caaya bee. xele benn bu ci xam caaya amut ak man <laughs> xam nga luy caaya. yow xam nga caaya ndax. xam nga caaya. <laughs> xam naa caaya bu baax. Ah! <laughs> xam naa ko mooy dinaa la ko wax. ok caaya. dañu daan wax naan caaya neel képp. bu ma uh-huh. demee ndar xotti tubéy. Uh-huh. Uh-huh. caaya. kenn naan damay ñawlu caaya caaya mhm. kenn mënu koo ñawlu mhm. benn téer mënu ko mhm. tubay ji nga aman muy tubay ñoor wala tubay sentir bi sentir xewee moom ngay sol ba mu xar ba xaraatoo nga xam ne pul bi ci tànk yi day xotteeku nga teppi ko sànni bi teppi bi ci tànku càmmoñ bi sànni kumba si bàyyi koo ci eh, ci ci sa ndigg jaar ci suuf dem ba ci sa gannaaw booy dox ngelaw di ko ëpp booy bay muy jayi jayi loola mooy caaya kon caaya kenn du ko ñawlu caaya gu ne ndakaaru yi nañu xam ne loolu du caaya mhm. tubéy yii ñuy sol tubéy seen tur ak mhm. tubéy ñoor mhm. moo xam pantacourt la wala pantalon léegi ñu mu ci mën a doon rek nañ ko xàmmee waaye dama ñawlu caaya looy sol mu ne caaya déedéet caaya du loolu de caaya dafa tubéy yu xar la ba nga xam ne bay la man ca àll ba du dëgg loolu mooy caaya kon noonu ñu yàqee caaya ne ñu yàqee daal la bii dafa am xaayit ci wolof xaayit mooy boo nee am xar. am xar am xar. Mm-hmm. Mm-hmm. nga fi a. Mm-hmm. ak ma. boo koy màndargaal. deuxième lettre bi ngay jël. am xar xar mi. a ak ma la. boo koy màndargaal ma mi ngay jël. am xar xar mi. boo xar ma. dafa mel ni maa ak yow. danoo romban am xar di ca waxtaan. ñëw ba fii ma ne la waa yow xar moomee ah xar ma. bu boobaa maa yow koy Mm-hmm. mooy ñett xamul waaye ñaar xam na dëgg la dëgg xar mi mm-hmm. dafa nekk fii nga jàkkaarloog moom ku ñëw séen ko mm-hmm. noonu la yëpp demee boo nee ab rajo ba ba ngay jël ak a ba ngay jël rajo bi wala rajo ba ah loolu aw dàll aw dàll nga ne dàll wi bul ne dàll bi bul ne garab bi ak garab garab gi ak garab garab gi ak gëléem gëléem gi aw fas fas wi waaye fas bi <laughs> nga dégg ko ne yow takkal xar bi yow takkal xar bi ci garab bi parce que yaa dégg lii takk montar lañ ko def wala lam xar dañ ko yeew <laughs> ah mhm. am na euh, genn kilifa gu mag am na mhm. way wu mu mhm. mas naa cee waxtaan ma ne leen woy wa nag neex na baax na noo ngi koy gërëm di ko sant waaye dane may teete mbaam sama doom yéeg ci mbaam mbaam di su ko tete mm-hmm. tete xale bu ndaw mm-hmm. bu yeex dox mm-hmm. moom la ab doxkat di jàpp ci ay yoxoom di arrière xale bi topp ci beneen dox ko jël kuur di ko dëbb ca tànk ya noonu la ñuy tettee xale loolu mooy cosaanoon baat bi tette ci tette di ko di ko yóbbu muy dem ci la ñuy jël nag baat bi àbb ko di ko jëfandikoo ba booy def dara mën na la a ah, téema ñëw la maanaam téema ñëw dimbali la baat bi dañ ko àbb foo ko fekk furul fii dëkku fa Mm-hmm. mën nañ ko àbb nag ndax euh, tubaab ak ñëpp dañuy àbb baat mm-hmm. Mm-hmm. baat itam dafa yaatu loolu mooy teete yéeg kenn du ko def ci mbaam garab la yéeg ah ab lal kenn du ca yéeg dañ cay toog wala ban wala ñu tëdd ca kon baat yooyu xale dañ koy jaawale dëgg la dëgg am na geneen kilifa gu wax jenn wax joo xam ne mhm. wax naa ci ab émission ne ko kooku baax nga lool mhm. ku tedd nga boroom xam-xam nga mhm. waaye dangaa jaawale kàddu yii maa ngi koy wax nag du pour dal ci sa kaw saa niw mën a xeer dama koy pour xele yi defee ne noona la ma wax leen du noonu nii la ndax ku wax ku weddi sa noona war naa tegal ne nii la ngay dégg di naan ceeñeer gu jolli ci lëndëm mhm. kenn du ko dëgmal di gëlëm mhm, mhm, ceeñeer ceeñeer gu dolli ci gu jolli ci lëndëm kenn du ko dëgmal di gëlëm yaa ngi koy dégg ca rajo yi dégg la léegi nag ceeñeer amul ci lëndëm ceeñeer amul ci lëndëm xam nga lu mu bëgg a wax dana jéenéer bu jolli ci lëndëm kenn du ko dëgmal di gëlëm dëgg la dëgg jéenéer mhm. ngay dox guddi mhm. dem ba réer mhm. amatoo foo jëm nga ne man day jaaxle naa nga xool ba yàgg nga séen tàkk-tàkk fee wala cokkorob sa war a fee wala ab jéenéer fële dégg nga nga ne lee ab dëkk la kon xam nga gëlëmatoo kenn du ko dëgmal dox ba jege ko di gëlëm mooy jéenéer bu jolli ci lëndëm kenn du ko dëgmal di gëlëm wax ji mu wax baax na na maanaa dindi na nit ñi d'accord na ma moom waaye dafa jaawale baat dëgg la dëgg la ceeñeer Mm-hmm. moom la tubaab di wax mm-hmm. rayon du soleil mm-hmm. boo nee cim néeg tëdd ba gëmmee ba bët set nga biddanti yooni jant boobu di dugg ci biir néeg bi Mm-hmm. loolu mooy rayon du soleil loolu mooy ceeñeer mm-hmm. kon mm-hmm. mënta am ci lëndëm mënta am ci àll nii la mbir mi demee macha allah weddi wu ma ko xeeb ma ko damaa wax ne baat dafa jaawale jàmbaar la nag macha allah kooku wax jàmbaar la noo ngi koy sant di ko gërëm dañ koy déglu itam waxtaanam borom xam-xam la waaye nag nit mënta xam lépp dëgg la dafa jaawale ceeñeer du jolli ci lëndëm jéenéer mooy jolli ci lëndëm ceeñeer néeg bu waa ji biddanti mhm. ba jant bi dugg si mhm. yoonu jant boobee nga gis mhm. mooy rayon yi soleil yooya loolu mooy ceeñeer macha allah am na solo macha allah am na solo am na solo macha allah njàngale boobu it am na solo lool yàlla na ko ñëpp dégg si luy ëpp di xeeb la ndax cosaan waaw cosaan lu si nere nga teg ko place sëñ Tuubaa dafa wax de ca jawharu nafiis juróom-benn téeméeri way la ak juróom-benn fukki ak yetti way moom moo ko wax قد يتوا خصبا من الأبيات خصبا عن كيني أقام أدات خالون كوكا جروم بين تيمير لا سات جروم بين فكولا بابا نيار لا ليف جبن لا كون مي جروم بين تيمير جروم أجيت جروم بين فكويت ألور نينا كبير وجوزو تسريحه عند البريد إن كان لا يفهم تلويه عن يفيك Mm-hmm. macha allah booba dañu mm-hmm. doon wax kuy bañ bañ kuy wax lu ñaaw. Mm-hmm. bañ kuy wax lu soof. nangam ak ki nangam mu ne waaye. bu fekkee ne waa ji day jàngale. nekk ak ki muy jàngal. man bu junjee waa ji te bu ko li mu koy junj waa ji mën koo xam ndax xel ma neexut. te junj ba bu ko xamee mu amal ko njariñ ñàkk xam nga da koy lor. nee na bu boobaa. wa jawwasu tasriahu daganale sa muus. ñu leeral ko. Mhm. indal balit ci waa ji mhm. in kaana jéem dafa nekk di koo xam ne kii mhm. laa yafhamu du mën a dégg teleween ji ñu boo xam ne bii yu fiit bu ko xamal mu jariñ ko kon mooy lii leeral dara te jublu ca jàngale lu wér lu wér la lu wér waaye bu doon lu ñaaw fii mu ne du ko leeral ci rajo bi dëgg la dëgg la macha allah bu ñuy jàngale fiq bu ñuy jàngale fiq am na téere jamono fànn ko bu ñu ca eggee duñ ko jàngal seen doom dëgg la dëgg la dañ koy boolee geneen aalim mu jàngal ka ko ndax kàddu yi ciy ci nit doy war donte wax ga dana dagan mhm. waye duñu ko tamu mhm. deug la sha allah moy mangi dañu am yar mhm. am ay teggin wax day woddu wax wërta raflé dëgg la borom xam-xam da koy deglu ke la mag diko deglu ke la dàq jang diko deglu kon wax non la dañ ko surtout surtout radio euh, nga xamne fim lay dem ma sha allah da ngay deglu yenn sa yenn kaddu yo xamne ne doy na waar doy na jaaduwul wallahi wallahi xam nga lu len koy defa dañoo jàng fii kenn mënta dem bitim rew jàngi fa muy tubaab muy arab mhm. te amoo fii aw kayit dangaa mhm. jàng fii mhm. jaar ci daara yu ndaw yi ba am ci kayit am kayit goo gu la yóbbu am bourse wala yu na mel kon xanaa jàng nga fi xanaa yàgg nga fi nga dem nag bitim réew ñu jàngal la yeneen xeeb loola say bokk xeeb loola say kilifa xeeb loola sa cosaan nga ñëw fii du toonu ngoo dégg wala koo ca jox leetara wolofal di ko jàngaloo. Mm-hmm. naan ah <laughs> man seen wolof yi ah seen wolof yi xaw ma ko <laughs> koo ko ci jox laa la uh-huh, uh-huh. ah mm-hmm. baat ya déggul wolof ya te moo ko tey mm-hmm. complexe la daf c'est un complexe c'est ça la waa ji bëri na wallaay wallaay lu wér mu ngo léegi ko loolu mu wagg ne xamu ko ci la jaar ba jàng bi la yóbbu ca ki am na ku nekk si yoon bi bismillah bismillah asalaamaaleykum salaam wa

allo allo allo. xam naa dafa kooku mooy Pape Joxaane. waaw dëgg la ndeysaan la. <laughs> macha allah Joxaane kii Cissé. waaw ñu naa ci xam. naa këf gi daa xaw a kii waaye. Mhm. waaw Fallou mi Fallou ku baax Fallou mi. Mhm. ku baax la. dëgg la wallaay wallaay. taalif yàgg a defar. balaa taalif yii di xew. Mhm. moo dàq taalif ñiy taalif. dëgg la lu wér lu wér. danaa ko dangay seet taalif bi. baaxaru bi day respecté baaxaru yi. misaan mhm. bi lépp daf koy respecté. Mhm. dégg mhm. def na ci xeesal bi muy soog a xew. def na ci xaalis def na ci Afrique. taalif fa 1977. boo maa nga RTS. mu ñëw fa indi taalif fi. ña ca bureau ña ca euh, euh, fële. barab ba. xool ko xool xam naa xamuñu ko. xamuñu taalif. ñu ne delloo ko. Mhm. way nga sëñ Touba. Mhm. way nga dégg nga Alaaji Malick. Mhm. waaye da ngaa woyal woyul Seexu Amar Fuuti. <laughs> Fallou neen waaw léegi. <laughs> wax dëgg yàlla. Alaaji Malick boo ko woyee. way nga Seexu Amar Fuuti. wallaahi wallaahi ah? wallaahi te Alaaji moom a gën a jege. wallaahi moom laa gën a xam. ma woy ci. ñu ñu ñu rejeté ko. ma ñëw yem ci loolu yi ñu ne nangam. ma ne kaay nu dem. ma yóbbu ko studio C. Mm-hmm. enregistré ba mu leer mm-hmm. walbati ko passé bande ba Ahmed Basir Kunta mm-hmm. moo nekkoon chef de chaîne yooyee jamono mu dégg ko xol ba sedd ma wax ko xol ba sedd nii la way woowee fàllu taalifu rafet la dégg la macha allah ku yàlla dimbale mille neuf cent mille neuf cent boobee léeg-léeg nga dégg mu ne Pape Joxaane moom mu jëkk a jox micro te am na ñoo xam ne jox naa leen micro te waxuñu ko kolere la waaye moom ku ah, nga Mbàkke Bawal métier moo di ah, fal daal na nga koy gërëm mën a di ko sant. te man mhm. a defar. te mhm. tubaarkàlla bëgg cosaan. lu baax rek wolof yii nag. Mhm. moom dabu wolof ak. lépp luy wolof da koo fonk. cosaan da koo bëgg te da koo digg. dëgg la lu wér lu wér lu wér pour wax dëgg gi noonu rek la demee wallaahi wallaahi dëgg la. foog nga dire les choses telles qu'elles sont. dëgg la macha allah wallaahi wallaahi. noo ngi koy gërëm di ko sax dëgg la dëgg la ah, nu ngi koy nuyu bu baax ah, alxaaji Fallou ah, man bokk naa bokk naa si ay auditeurs am. mu ko sopp lool it macha allah. ku baax la ndax léppam defar rek. Mm-hmm. defar te dafa am solo. dëgg la dëgg la eh. xam naa wax naa ko ne ko sax. Mm-hmm. dinaa ko dalal. dëgg la dëgg la bis boo xam ne ci wolof la ñuy waxtaan. wallaahi am na solo ndax nit ku ne. Mm-hmm. am na lu mu jàngiwaat. nit ku ne am na matière bu mu gën a man moom wolof tubarkal la dëgg la dëgg la la dëgg la mën ngeen noo topp si 88 628 32 32. bismillah bismillah 88 628 32 32 ñu ngi si Siwel FM 98 point 0 nu fi wettali compte tey ak sunu mhm. papa alhaji papa joxane ni ko haji Fall waxe rek mhm. macha allah. defal nga nu lu rëy lool macha allah. waaw <laughs> noo ngi woon ci firé mbolof mhm, maanaa. Mm-hmm. nit ñi nañu dellu ci seen cosaan. Mm-hmm. ku ne ah. làng wa nga nàmp nga respecté ko. Eh, papa damay dégg ñooy xam ne. Mm-hmm. Eh, seen kër du nangu nuy wax seen doom olof. ah te wolof lan ne dañuy bëgg di koy lu ñuy wax ak moom rek. nu jàng wax <laughs> nasaraan maanaam dañoo complexé. <laughs> pour pour pour du dégg euh, ah, wolof. loolu liñ ci jublu ñooñu ko ndax. waaye mooy li ma la wax léegi. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. mbëtt du maasum bar. dañuy watandooy genn rek mm-hmm, mm-hmm. tolodung dug mas mhm. diro ko yamal mbag li la mag mhm. ni wax deug la deug neena la bar ci dik mu ni mukk ci adina mhm. nit ñi mu ñoo fexé ba doon tuba bi xonko bo le tukulóor tukulóor nga boy séréer séréer nga la sa cosaan bul xép sa ndey bul xép sa da nga fekk sa bay mu tël wayjur wu jigen doon la nga doon kon boko xébé xeebee nga sa sa ni nga ko xeer dafa melni dafa joom wallahi wallahi te yalla du joom deug la deug kon nañu respecté wayjur yi respecté li nga nampé nga doon ko mhm. loo namp tokkam tegu ko mhm. di wax la nga bëgg yi nga alpulaar mhm. tukulóor yi nga gis ñu am fulla lañu gis nga boo leen seetee nanguwuñu seen doom sax làkk wolof <laughs> dañu ko ci duma yar ko ci wala ñu yóbbu ko fuuta <laughs> dégg nga ngir mu dégg loola eh, eh, làkkat eh. yeneen yi séréer si wolof rek moo am ji jikko wolof moo am gii rëy wolof rek moo am gii complexé wolof rek mooy xeeb moroomam wolof ay xeeb mbokkam bu sa mbagg woyofee amoo ay bassin yoo sol yow miy jigéen kër gi ngay sëy danañu la xas wax la lu bon mhm. jiiñ la ba jiiñ la njaaloo mhm. ndax daga am wujj mhm. sa wujj wii ay bokkam am xaalis càmmiñam di ko dimbali wala nijaayam yow mii yaay aawa ci kër gi waaye sa jëkkër bariwul doole donte nday jee ko jur maire bi jëkkër jooju neew doole doo la mën a defal wallaay wallaay waaye yow doo sa njëkk jigéen yii sa sëri jigéen ñii amoo loo leen defal te ñoom dañoo war a xam ne seen jëkkër a amut seen seen mag moo amul wala seen rakk mm-hmm. kon bu mag ji amul mm-hmm. jox jabaram mm-hmm. jabaram du la mën a jox ndax wax dëgg yàlla yuut ku muy doo wàccu wallaay loolu ku yuut di te doo wàccu dëgg la dëgg la amoo dépense bu doy amoo yére ya nga gënal aw xew ñëw ñu bëgg nga da koy sàcc da nga koy njaaloo ji ñu jël na kee ay bokkam di dimbali moom it mu di la xeex di leen defal di leen xottil bu xew dikkee ñu di ko tàccu Mhm. naan ko de yow yow yow jikko yoroo jikko yi madam duggoo ci kenn kenn duggul ci yow yoroo jikko yi madam lii la wax eh. jigéen ñaa ngi bëgg a dee wallaay ndeysaan tas yëpp li ci ëpp dëgg la yaayu jëkkër yee koy tas mhm, mhm. waaye yaayu ba yaayu jabar du ko tas maanaam yaayu jabar yi laa wax ñoom dañu ne ca seen kër ak seen baay yaayu jëkkër yi ñooy tas sëy waaye baayub jëkkër ak baayub jabar tasuñu sëy yaayu jabar ji dina tas sëy kon meer yee koy tas Mm-hmm. yaayi jabar ji ak yaayi jëkkër ji mm-hmm. ñoom ñaar ku ci ne da ngay xëj ci sa wàll mm-hmm. jigéen ñi ndaw yi sëy ñu ngi bëgg a dee laa la wax dëgg la li ñuy muñaale kenn du ko xam sa jëkkër day tukki doon muudu muudooy sa jëkkër téléphoné la téléphoné sa yaayam ne ko wool ma diw mm-hmm. mu ne diw nu ma koy wooye diw kat la diw kat man gisuma ko soo ba tey moom nee naa la bu lekkee génn waaye yow nag nu nga ko tudd sa jabar ji nu nga ko tudd <laughs> daal da jaxase te ndaw saañ ci kër gi dëgg la benn bis mm-hmm. ndaw si bi ñu ko defee mm-hmm. mu dem jënd crédit téléphone jëkkër ji ne ko kat sa yaay ji li ma la ci doon wax lépp dëgg la mi ngi nii mu ne ko loolu mu ne dégg naa mu wax nangam Mhm. wax nangam yow li nga doon wax dégguma ko mhm. waaye ci lu toon tam laa xam mhm. maa ngi ne ci sama biirum nekk te di ci sama lan man dem ma buntu kër dem ma port dem ma fenn keroog la bàyyi responsabilité yaay ji ci jabaram mu xam ne ndey ji da koy tas day doxee sa ceeb bi da koy yàq ak maire yi nga xam ne seeni doom dafa am jabar au lieu ñu uuf jabar jooju def ko ni seen doom dañuy bëgg li jëkkër ji defal jabaram ji doomam ji di ko defal rakkam ji jigéen yey sëy barab sànga li mu bëggul ku koy def ja doomam yey sey moom maire bi mm-hmm. loolay def gorom bii di jabari doomam mm-hmm. kon kër yi mm-hmm. jabar yu tas yi yaay jëkkër yi ñoo koy tas ak ndeyi jabar yi. bari na si bari na ñu sonn. mais mais man doxkat laa. wallaay wallaay mais jaboot laa man. dëgg la ah. Mhm, mhm, mhm, léegi moo xew. dëkk bi looloo ko yàq. boo yow mii sëy boo amul xaalis. say bokk amul xaalis. sëb say garanti wut. la ca gën a bon nag. yàlla booy sëy te amoo doom. doom yàllaa koy joxe. dëgg la dëgg la waaye dafa jaasir kii. di day def nangam kii fexe ba sa jëkkër wàcc la. ah lii la ñuy def léegi. nee ma jigéen ñi nañu ko weddi lii moo am lu wér bëri na ah? bëri na bëri na kon nag nañ góorgóorlu defar jikko yi mm-hmm. nañ lu bëgg bokk gi mm-hmm. nañ góorgóorlu fàttaliku sunu cosaan mm-hmm. nii kat la wallaay wallaay macha allah 88 628 32 32 noonu ma ko waxee soxna yi ñu jar a dimbale la <laughs> yenn saa yi dinaa ko wax da ngay dégg ah, loo xam ne waaw da nga naan loolu warul la mën a nekk te lépp doomu aadama rek moo leen koy def noonu la de doomu aadama ni ñoom te ku si nekk nag comme que boo yoree joxe nga mm. da nga war a la nga yor ngir la nga joxe it nga seenu si nu defaral la ko. dëgg la dëgg macha allah am na solo na eh, gore yi kon yokk. Eh, góorgóorlu ci seen si seen sëy rawatina may jox leen tamit. Eh, liberté. Mm-hmm. Eh, nekk ak sa goro ba pare macha allah te lépp lu muy def ak jëkkëram nga bëgg ko ah. jiite it dañuy dem bay wujjee goro bi. <laughs> dëgg la bëri na dem bay wujjee goro bi na lu jabar ji waa ji defal jabaram. Mm-hmm. ndey ji bëgg mu defal ko ko. Mm-hmm. wala mu defal ko doomi jom jigéen yey say barab sàngam. te loolu mënta ne. wallaay wallaay mënta ne wallaay wallaay wallaay. ndax goro bi xam ne. saako ceebu bàyyi waa ji. moo ci nekkoon. bu dee ci kooku sàqu mbaayu baa ji mm-hmm. moo ci nekkoon mm-hmm. kon bu sa doom ji màggee ba am jabar mm-hmm. sàq mi moo jabarama ciy ne saakub ceebam bi jabarama ciy ne góor gu way gu am fulla du jël dépense di ko féetaleeg ndeyam jigéen ju mag ak sa doom ji ndaw ñoo ñaari gune rek la ñu tey gune gu gudd ak gu gàtt waaye jigéen tanewut moroom ma saa boo jëlee sa jabar teg ko jox jox ko yaay sa yaay bu ko meree rek tas ko bu ko meree rek wan ko jigéen ak lu mu mën a kamu jiite buy koy mere mhm. dig ko woon mhm. mhm. sa yaay mën na laa takkal jabar def ci fukki million waaye la cay mujj mooy a ah, boo aman jom eh, dooma fonto ndax yow yow li ci yow li indi maa ko def sa jëkkër yorul dara maa def lépp jigéen ji bëgg sa dégg loolu. dëgg la dëgg borom jom la. lu mm-hmm. dëgg. Mm-hmm. Mm-hmm. nga déggal ko ci noppam. bu yàggee mu xuloo eh, jëkkëram. lii ndey yi nañu wax leen ndey yi nañu góorgóorlu. ndey yi jëkkër yi nañu góor góorgóorlu ci jabari doom yi. jigéen yi nañu góorgóorlu ci seen jabari càmmoñ yii. yaatal leen. may leen xaafiya. bu ko defee ñu mën a noyyi. mën a def lu baax. jërëjëf jërëjëf barakallah 88 628 32 32 mu mel ni ki eh, minute yi mu ngi dem te macha allah danoo dalal kilifa. nekk mag tamit su min bi tegee ay minutes rek dañ koy eh, libéré fa tabaarakala mu mën a dallu eh, nuy yokk am mbégte bu baax si bokk ak moom jotaay comme ni ma ko waxee woon si tàmbali gi mm-hmm, di koy yokk ñaanalit mission bi mu dox si réew mi comme ni ko mbokk yooyu waxee mu waroon a bokk si ñi ni gën a lépp luy defar réew mm-hmm. te nu si takkal garaat mm-hmm. doomu aadama eh, macha allah kenn waru ko see jiitu bari na lu mu defar li ma lay wax nii 2006. sama benn jigéen nee na saa yu daan génn la ko yaayam di yabee mooy <laughs> Pape Diokhane de nee na loolu rek mooy yabam. lu xew tey naa mbaa watul lu xew tey su ko waxee loolu rek xelam dana dem si lépp loo xam ne <laughs> safaan la. walla wala eh, njub la ngoo xam ne mën nan ko ko def. Mm-hmm. yooyu yëpp xelam def say dellu si. ba su demee si barab muy ñaw njort. Mm-hmm. ne dan ne ñaaw njort ak ñaw njort. waaw xam nga am wute na. xam nga <laughs> ñaaw xel moo bon. wallaay wallaay ñaaw xel. waaye ñaaw njort aayut. Mhm, mhm, mhm. may jaar ne nga séen ma. wala ma ragal nga séen ma njortu de. sañ siise bu ma ko teggee dana ma mere. moo tax wolof ne la njortu ñaaw moo yor boroom. xel mu ñaaw nag. nee naa la euh, jëmmay taaro. jëmmay taaro. jikko mooy rafet. jikkoy rafet. ab ab xol day rëy. xol day am xel day sel xel day sell. jëmmay taaru mm-hmm. jikko mooy rafet mm-hmm. ab xol day rëy mm-hmm. am xel day sell bu jëmm taaroo ku la seen bëgg la bu sa jikko rëy eh, bu sa jikko rafetee doo def lu ñaaw mukk bu sam xel xol rëyee da ngay naat di doo xomp doo ŋott bu sam xel sellee ab tamit lu jaar day sell macha allah loolu mooy waral loolu ñu ne xel mu ñaaw moo bon bu guddee sax ñu ne borom saytaade la lu dëgg waaye ngott lu ñaaw bënul bu ko alxuraan di waxit dala ko waxee neen maanaa aw léeb la ina baada zanni ismun waaw lenn ñaaw njort lenn ñaaw njort dafa dem ba xel bokku ca lu dëgg mais nit ku baax day rafet jikko mm-hmm, mm-hmm. réyëb xol mm-hmm. sellum xel jëmm ji nag defaru ko mën naa taaru mën naa ñaaw kooku ci jëm yàlla la kon bu dëgg noonu la mbir mu demee nit ñi loolu la ñuy jaawale dëgg la dëgg la da bokkuñu toujours baat yi dañuy jegeñe di tekki lee di tekki lee damay yónni xele bi léegi ne ko eh kaay mu ñëw ma ne ko demal demal ci sa bàyyi alaaji siise ne ko Mm-hmm. ne ko nangam ak nangam xele bi di tendeefal ak day naagal mm-hmm. ma ko moo yow dema ba tey yeexal yeexal mm-hmm. yeexal boobu tekkiwut yeex dëgg la dëgg la waaw gaaw lay tekki <laughs> ah uh-huh. demal waaw na ne yendu fa mooy demal léegi ñëw si doon si jàngee si ne nit bu daan wax njaboot ñaare ngir moytul koy cet mën na kàddu yee am na ma koy waxee waaw mas naa dégg benn wax. Mm. Euh, benn lépp. Mm-hmm. Euh, ku waajur bu toggoon. Mm-hmm. bu nekkoon si néegam. gi mm-hmm. dégg nuy rat euh, nag. mu ne kan mooy pëf foofu. mu ne ko bàyyi ma ne mu ne ko ah yaay cas. Mm-hmm. <laughs> kon yaay cas waaw ndax day bañ <laughs> pëf bi. ponk la koy def. Mm-hmm. te bu dee nag mën a nag muy xele. Ah, yaay ciis foofu. waaw loolu waxiinu. dëgg la dëgg la mag ñi la dëgg la mag dañoo rafeti wax. Mm-hmm. demoon tamit ba si guddi. ñaareelu di tudd turu nit. waaw guddi. waaw eh, nu ko daan maytu te yooyu yëpp. waaw aaday léegi tax na bàyyeetuñ ko xel lool. bu timisaa loolu la si mag ñi jublu woon bu bu ñuy woo mun njaay mhm. danaan marax njaay mhm. marax njaay mhm. marax mooy heure boobu heure timis mooy marax ñu ne marax njaay mu daal di buy si dañoo bañ a tudd tur xam nga lu ñu ci jublu jamono yooyu xam-xam yu bon yi dafa bari waa ji nga xam ne daa am xam-xam bu bon day ñëw ba ci ginnaaw kër gi mu toog fa turul u mu dégg mën na laa jabar mën laa kort mën na laa takk mën na laa yeew feebar yooyu bari ñu xool ba defe ne xam ne loolu la mm-hmm. léegi nag mm-hmm. ñuy bañ wax tur wi waaj a dégg ko bu ko mm-hmm. déggee day daal di takk waa ji mu ne koral bank daal di feebar mu agsi nag ci kër gi doon gan dib sëriñ ñu daal di ne ah waaye kii def ah, lu ko dal mu ne nangam nangam mu daal di koy woo mu tëpp tëbal as ndox jox ko wala mu laaj weexal loolu lañ ca jiblu bu ko defee mu ficc la mu fasan rek mu daal dina conket jóg est-ce que loolu lañ moo tax ñu naan marab lépp lépp si di dellu si aar mu ngoog aar njaboot mu ngoog cosaan ko kaaraange la uh-huh. kaaraange mag ñi la ñu daa def lu am solo marax njaay marax diw mag ñi uh-huh, uh-huh, dañoo yeewu dëkk boo dégg ñu tudd ko mu làng ak beneen dëkk Mm-hmm. ñu boole leen mm-hmm. dëkk ba ñu mujj tudd moo fa jëkk mm-hmm. waaw dëkk ba ñu mujj tudd mais naa ñu ne la Cees jànqeen Touba Tuul Mbàkke Bawal Touba Mbàkke Cees jànqeen jànqeen a fa jiitu bu ñu nee Touba Tuul sëñ gaawaan moo fa ñëwoon dëkk ba tudd Tuul mu am fay taalibe am fay njébbal sañc fa kër tuddee ko Touba ñu ne gan Touba mu ne gii ci tuul mooy Touba tuul Touba Mbàkke bañ ko sañcee mba ba ñu sañcee Touba te mu làng ak Mbàkke ñu ne Touba Mbàkke Mbàkke itam bi ñu ko sañcee ci Bawal ñu ne Mbàkke gi ci Bawal am na mbakke Saalum am na Mbàkke Kajoor am na nangam mag ñi dañoo yew woon wallaay wallaay bu nit bu mbooloo taxawee ne ñu ne wal ma njaay bu <laughs> ñu ne wal ma njaay ku góor ngay woo bu ñu ne wal ma njaaya bu ñu ko maasee ca kaw eh. jigéen ngay indi mm-hmm, mm-hmm. wal ma njaay mm-hmm. ku góor ngay indi bu ñu ne wal ma njaaya ku jigéen ngay woo wal ma jóob ku góor wal ma njóoba wal ma faal wal ma faale mu ngoog bu fekkee ne ab aw tund bu ñu nee bawal réew ma lañuy wax tund wa buñ ko tuddee yaari yoon nit ka fa dëkk la ñuy wax Mm-hmm. bawal bawal mm-hmm. bawal bawal bi nit ki la bawal réew mi la <laughs> kajoor kajoor nit ki la mm-hmm. kajoor tudd wala waalo waalo saalum saalum saa bu ñu ko tuddee yaari yoon rek ka fa dëkk la ñu wax bu ñu ko tuddee benn yoon tund wala réew ma la mag ñi noonu la ñu daan def kii nu jël ki si yoon bi bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw oh, waaye Cheikh Pape Diallo maa la namoon waaye waaye ku baax ku tedd ki ana nga <laughs> man la Cheikh Diop Ndiobo Mbour ah mu waay waay yow waaye Cheikh Diop ana nga <laughs> allo. Ah, allo. Euh, serveur bi ka sant te juum kat <laughs> ah, waaye Cheikh Diop war naa ci waay 88 628 32 32. Cheikh Diop noo ngi lay gërëm di la sant ci woote bi déglu ak woote. wallaay ñaari effort nga boole. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, am na ku ne si yoon bi. bisimilah. bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waa sëñ bi. jàmm. ñu ngi sant alhamdullah kan la. fàllu kan, kan la ngor. kan kan sëñ fàllu. du Fallu kan bi ma xamoon de. maa moom la waaw. alaaji fàllu gëj naa laa dégg. gëj nañ yaa ngi jàmm. waa ngi sant alhamdullah. na yitte yi kan, kan wallaay fi la ëppee mbaa jàmm la rek. amin amin amin yalla na yokk yalla na ko yalla boole. yaa ngi dalal ku ku ku rafet xalaat de. macha allah wallaay ndeysaan. góor gi nga xam incha allah dina la ko jox. alhamdulilah moom ku mel noonu. dëgg la dëgg la lu wér sax kay. lu wér man lii moom baax nañ ci léegi ndax duñ fekk dara lu ñëw. wallaay ndeysaan wallaay wallaay. wallaay moom maanaam borom xam yu rafet daf ci baax. dëgg la dëgg la dëgg la. ñu ngi koy ñaanal na la ko yàlla may. waaw ñu yal na la yàlla may loolu nga ñaan. yow <laughs> moom wax dëgg yàlla ñu mal ni yow moom wax dëgg yàlla. lañ ko war a waxee parce que yu dañoo baax lool. ci mbir dëgg la lu wér waaw xam nga jenn waa ji ñuy wax euh, ku ñuy wax dégg nga euh, waa jëlee sama benn xarit la ma nga dëkk Géejawaay. Mm-hmm. nee na ma xam nga nu ma tudde mm-hmm. régulateur social. <laughs> macha allah ndeysa régulateur social la ma tudde <laughs> mu ngoog dëgg la. moom comme ni ma wax rek war nañ lu wér lu wér sax lu wér kay yaa rafet xalaat mhm, mhm. kon de ña ko def duñ ko réccu dëgg la dëgg la dëgg la loolu lan xam kay Alaaji Fàllu moo tax ne ne nan koy indi si daara ji ngir soppe yi nuy xaar ñëpp macha allah mën a barkelu si moom dëgg la baax na incha allah kan jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou. baraka laa fik xale yi wax ci rajo bi. Mhm. rajo yi. Mhm. <clears throat> nee naa leen ba tey. Mhm. ku ciy wax rek bay tàggoon nag ñu ngi leen di jox dox daje. dox daje. <laughs> dox daje amul ci antenne. <laughs> amul ci micro ca mbedd ma daje waaw. <laughs> dama leen ne dañu naan ñu ngi leen di dig daje. rendez-vous la nga di ko diggee te joxee goo ko. xamoo nga dana yeggam déet. du dëgg dig daje. noo ngi leen di dig daje. nu ngi leen di dig daje dig. Mhm. dig daje la. Mhm. waaye du dox daje. Eh, am amul ñuy wax tamit nu ngi leen di jox dig daje. waaw ñu ngi leen di jox waaw ñu leen di dig daje mooy benn la eh, eh, dañoo bëgg lee. Mhm, te am mën na mokkalaguñu ko. waaye jàmbaar la ñu ñoo man ñee. ndeysaan ngi leen di jox dox daje. kooku du wolof la. waaye du wolof yu placé woo foofu. te li ñu wax lépp wolof la. waaye nag ni ngay juumee ci tubaab. li ko jéemal ci pël. noonu la. baat bu ne. boo ko deelee ci cosaan la. la muy firi day meññ day bari day yaatu. Mm-hmm. mooy li ma wax léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. dañu wax ne. le mot. peut toujours parfois expliquer dans son contexte et dans le sens général. Uh-huh. ndeysaan tubaab yi loolu la ñu wax. kon amna ci arab. am ci wolof. am na ci deng tuba amna am na ci lépp. xam-xam bu ne ben xam-xam bu bon amut. jangal yépp nga man ko. te fas yéenee def ci lu baax. boo demee ci Masaalikul Jinaan sëñ Tuubaa nee na. bépp xam-xam bu nit jàng ak kale cay dimbali boo demee ba man ko te di ca def lu baax yéene bokk lu baax la waaye boo ca tooñee kat mi ngi mel ne ardu kalpe bu yëree nit ñi guddi nga jaay ko jaasi wala nga may ko jaasi ne lu mu ca tooñ yéen koy bokk loolu la téere wax ka bàyyi sayfi li liseen ka mun nit ñi nag dañoo jël àddina defe ne du jeex jël àddina defe ne lu neex la àddina dafa jël ay bon bonam làq ko ci biir jël ay baax baaxam teg ko ci kaw xabaaya tux fii wa tub di mahasinan lii la alaaj Malik wax ca ca ca ca sañul xulóob nee na wa in adxakat yawman sa tubkii bi suratin wala xayra fi lazati baadu lahiibu nee na bu la reeloo tey nga defe ne yaa ca ne mhm. xelsa na laa jooyloo ci lu gaaw wallaay lu wér lu kon jamono yoo demee bay bay jooy mhm. xamal ne la nga doon ree mbànneex sa mhm. sawaraa nekk ca gannaawam wa in adhakat yawman sa tubkii bi suratin wala xayra fi lazati baadu lahik wallaay wallaay loolu Seex Sidi Aji Maalik wax wallaay wallaay ah te wax ju wér la ju tegu ci aw yoon wax ju ànd ak alxuraan la ah mu nekk faajiratin tasaa rijaalan daat humu ila baytiha wa hiya riqaaba xaloobu ne comme kàccoor bu jigéen la mooy dog góor ñi di leen dogale ñu waaxu mu yóbbu leen néegam ñu jàpp ne bànneex la ñuy am ndekete ñaari ponkal moo ne ca buntu nee ba ci biir néeg bi bu ndaw si duggee nga defe ne yaa ca ne saraax ponkal mii téye la mii poña la ñu duma la jël li nga yoroon def la yaram yaramu neen tànn la ca tali ba <laughs> ne ndekete waxee moom ndaw sax xaloo bu coraakoon la riqaaba baat ya kafaa jiratin kem ka kàccoor bu jigéen mhm. te sa abuy doog rijaalan góor ñi daat humu diraan woo ilaa bayti haa jëme néegam mhm. ndekete xaloobu coraakol li xaabaat ya mhm. moom àddina noonu la mel kon boo muusut da ngay góor góor boo muusut doo góor góorlu da nga naan yàcc alaaj maa ngi nee la ñetti fan la nee na nee na tey jii axi faj tahit fil yow mi góor góorlu yow sama mbokk ci ji jii góor góorlu ci sa kem kàttan dégg nga walam su faa itun démb de béy na faat na de لكن كده فتن دوكو داف وفي ربنا يا دال وانا الغيوب نانا الله آه، ولا يكمبل كي نون كي بروم دوي دي غونه ديفه ني واي كمبل كين خمو كي دارا الله كمبل ديمب وينا غورغول كي تاي لولا سانغ با واخ كون نيت ني ساغان دا ني ديفه ني دو جيخ واي ني خم خم نانيو ني ادنا دا فاي جيخ لو وير لو وير لو وير مونغو كون آه، الا مثل دور القس من من يجمع الدنا نينا كي بغ ادنا saxu bu sa baali xam naa xamoo ko mm-hmm. saxu aw sax la waw day jël ay bant yu baree bari mm-hmm. def kom néeg ràbb ko mu mel ni ak sugum xam naa ko waaw mu ne àdduna bu la koy misaal <laughs> uh-huh. ni ngi mel ni sax woowu waaw de am ko di defar loolu <laughs> uh-huh. Uh-huh. nee na ki jaxasoog àddina mm-hmm. nee na noonu la àddina mel ci moom wali doodi fi man soo ji hii boobu nee na mu saxawa wallahi alkande moo koy dikkal ca ràbbam boobee Mm-hmm. yooyu yëpp dañ koo misaal mm-hmm. kon ki mm-hmm. yewu te xam day xam ne àddina mi xalilun baxaa min haar xalilu walaw dara maxabataha man raamaha la tabubu loolu laa lañu ma la wax nee àddina tuuti la te tuutee ci def kon ki nga xam ne da koo sàkk bëgg ko walaay na dellu te tuub te xam ne li am solo dégg la lu ah? wér a wér nii la àddina mel loolu kon macha allah ñëpp war nañ koy déglu si gën di raxas xol yi. dëgg la comme noonu nga koy waxee. ba génn si soxor. Mm-hmm. si kañaan ak kañaan. Mm-hmm. voilà eh, bokkuñu waxee woon ne bokkunu waaw. xanaa xamoo ne. Mm-hmm. fiir. ak siis. ñoo bokk jenn ndey. waaye bokkuñu bàyyi. siis. kii day bañ ko jeexal ndab li. kii bañ ko jeexal ndaw si. jeex na ñoo bokk maxsuud ñoo bokk jublu xam nga li wax <laughs> baax bu baax fiir ak siis mm-hmm. ñoo bokk jenday bokkuñu bàyyi. iñaan mm-hmm. ak soxor mm-hmm. ñoo bokk jenday dañoo bokkul bàyyi. Mhm. yooyu dafa kàddu la yu ñu xam dañ ko mën di xàjjatle. di ko wax nit ñi xele yi ko xamut. Mhm. waaye mag ñi moom xam nañu ko. wallaay wallaay ndax nee naa nun mhm. sunu xam-xam bariwut sunu yéene moo rëy. wallaay ndeysaan ba sunu njàng guddul. gi demunu bitim réew. waaye nag sunu yéene moo rëy. dëgg la dëgg waaye wolof yi nu nàmp moom. dégg nañu ko. jàmbar lu ma ci damay daan laaj mag ñi. nga xam ne ñoo may jàngal. ma laaj leen ko. ndax nit mënta xam lépp. xel mënta peeg lépp. dëgg la dëgg ba tax na boo wàccee sa bopp. wa wane na xamoo lu bari sa njuumte dañ lay day yomb a jéggal mm-hmm. waaye boo yëkkatee say mbagg def na yaa raw nit ñi mm-hmm. am na ku lay téq ku ndaw lu wér daaneel la jël bu rëy noonu la demee lu wér macha allah noonu la demee am na solo mm-hmm. am na solo 88 628 32 32 sëñ Abdoulaye xam naa day am loonu nu yëkkatil tuuti rek liy tolloog cinq minutes nu may ko mu naan ndox tuuti fa tabaarakala <laughs> bu bu nu si joxee ndigal nu amaat vingt minutes eh, fa tabaarakala su di seet tamit macha allah lu dul doy liñ koy waxee lu dul doy. maanaam lu neex du doy. waaw lu neex du doy. ak lu dul doy tamit loo sa am rek. doy loo xam ne du doy itam. <laughs> am santal yàlla. wallaay wallaay macha allah nag bu ñuul it wolof nee na. lu wér a wér <laughs> allah dégg nañ loolu kon bu baax a baax. dégg nañ ko macha allah joxaane. wallaahi kontaan nañ lool macha allah. sëñ eh, Abdoulaye nga am loonu yekkatil tuuti.